alors mbokku internet yi Wassare TV gis nañ ñoo ngi toogal fii la tey sunu yaay ji alors mbokku internet yi Wassare TV tey gis na ñoo ngi toog fii sunu yaay sunu yaay di bàyyi sunu waaw. alors mbokku internet yi Wassare gis nga tey ñoo ngi toog ak nii nag sunu yaay ji sunu yaay mu nekk yaay si Benjamin Benjamin sa bu Fallou bu Waly Seck yaay boobu ñu ngi leen maa leen di fay. koor gi. ah sant yàlla rek sant yàlla rek sant bu wér.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 yan kàddu ngay yox si moom si Wally Ballago Seck. waaw Wally man ak papaam ñoo bokk ndey ak baay maa topp ci moom suñu borom def nag boo juddoo ci mbaax sa yaay baax sa papa baax foog noonu da nga mën a mel. Wally papaam nii la meloon kon moom nii rek lay mën a mel sama doom jooju faramaare ni Kajoor ak Bawol waaye naale daa naale borom jaam ñu xees ñi borom jaam ñu ñu ñi di borom baax nag borom xolu jamaa booba nga xam ne. bu may nit daganoon dina yëkkati ay nit di ko may ay nit ndax xolu joxe bu ko yee suñu borom defal papaam Thione Seck doon na ko wax ne waale xol bi mu am ci joxe man bàyyam Thione Seck aw ma ko te pourtant gën Thione sekk ah taxula bon taxula bon ndax waale mbaaxam ci papaam la ko jëlee ak yaayam ndaxte wax dëgg yàlla loo namp rek moo ngay tàqamte ko muy nag xale bu baax xale bu am cër xale bu am respect xale bu joxe cër di borom baax boo xam ne day may alalam ba pare toog di jooy xam nga loolu baax mënu ko weesu te li muy def yëpp nag ci ay mbokkam la ko jëkkee lépp lu mu def ci biti rek lépp lu mu def ci biti rek ci ay mbokkam la ko jëlee ci ay mbokkam la koy jëkk def ba pare doog a dem ci biti néega may lu ne néega def ci ay mbokkam nag lu ne mariage dañ koy ñaanal taxawaayam yàlla na yàgg yàlla na sax ci barke Seydina Mohamed di ñaan ànd bi yàlla na yàgg sax ànd bi muy ànd ak sama waa kër nag ak bépp mbokk Thione Seck wala bépp doomu Thione Seck ak suñuy mbokk ñu ñëpp yàlla na yàlla jàpp ci seeni ànd rek mu dëgër loolu rek laay ñaan suñu borom di ko dagaan te xam naa ne man na ko te dina ko def incha allah rabbi. mu mel ni social bi wax ak baax bi wax si moom dafa mel ni maanaam moom parce que ñu gisee tey jii Wally Seck à chaque fois bu génnee sax mbooloom jii ñu gisaat benn semaine génnaat tamit di loolu seen dara la nekk. waaw loolu suñu dara la nekk ndax Wally social am boobu muy dox dafa gimmi gis papaam ko def ba léegi coon sekk këram ñu fay rak jóge na fi de mais ba léegi ñu ngi rang buntu ndax social te sëñ Fallou ak Waly Seck ñoo bokk ndey ak baay ndax maag Thione Seck ñoo bokk ndey ak baay kon ñoom deret ji benn deret bi la li may wax chaque jour benn deret bi la sëñ Fallou social lay dox te boolu kook réewande du gëdd kenn du jànni kenn loolu lu mu yor jox ko doomu aadama yi toog kenn mënta joxe nag di ñàkk loolu amul fenn kuy joxe rek yàlla suñu borom da lay dimbali ngay gën a am looy du mel ni loolu moo waral kii di Wally Ballago Seck ñu gis temps yëpp muy signé ay contrat yoo xam ne contrat yu am solo dem na sax ba nouvel international kon gis nañ ko tamit bu déwénee benn si avant koor rek bu signé beneen contrat bu am solo boo déggee affaire yooyu noonu nu mu lay def attaque Badiane. non damay kontaan xam ne maanaam gars yi nañu noppalu. lii barki Mouhamed nañu noppalu mbiri suñu borom la sëriñ bindu ko sëriñ fasu ko mbiri suñu borom la te ca kaw ca kanam day gën a yokku wax naa ko koroog benn sit bi fi ñëw fii may leen Wally Seck mën naa am sax daa ko fee way mais na yàlla moo ko def muy star bi. wax na ko barke Kaabatalaay yàlla moo ko def muy muy muy star bi te loolu xoola day doog a door commencé gul ca kaw ca kanam lay dem barke na. ak lu ñu gis nii yëpp. barke Mouhamed day doog a door. billaahi wallaahi day doog a door gisaguñu dara yàlla nañ fi yàlla may rek wir gu ànd ak gudd fan gu ànd ak tal ñu xam ñoom gisaguñu dara. boo boo maanaam waa Seck des fois ñu am na ñu koy classe à chaque fois di wax si moom loo xam lu ñaaw la lu mu lay def en tant que baajaram yow. non dina ma metti du ma metti ndax boo jiitoo foog ñu la sa taadu réew yi wala sa taadu ndaw yi te suñu borom moom la jiital mënuñ ci dara ca kaw ca kanam incha allah rabbi xaajagul day doom a door barke Mouhamed day doog a door loolu la rek. sànq Benjamin moo koy wax. am na ñoo xam ne sax dañ ko fànn nekk ay woykat maanaam bu génnee sax ñu daal di génnee ñu bëri Sénégal yi jàpp ne ay ñoom ay concurrence lañ loo gisee mais maanaam mooy li Thione Seck waxoon rek avion bii dem non gars yi ku bëgg a dem ci ngay langaamu pour dem boo ci langaamuwul doo dem doo dem fenn parce que mu xamee boo ci langaamuwul doo dem mais am nañu fula ndax xam nañu bii mooy dem bii mooy numéro bii mooy ndëmba woon kon il faut ñu laxasu ci pour dem mais ci ginnaaw rek la ñu taxaw di ko xaar ba mu pare barke Nabil Moustapha barke Seydina Mohamed. kon daal artiste bu ci a dem daal na la nga am seen artiste bu ci bëgg a dem la nga amul ci ginnaaw Wally Seck noo doo dem barke Nabil Moustapha. merci beaucoup ok ok ok merci. waaw maa ngi leen jaxas waaw. Ah, balaa ñuy wax balaa béy dañuy yaatal jiw gi ba pare ay yaay booy dimbali leen ñu paa yeeg maire a waaw maanaam lii bay samay def jël ay lekk daal di jox maanaam ñi ñi néew doole yi ak li képp koo xam ne mu nekk. waaw papa ngi daw lii bettuma ci moom. Ah? nii la juddoo moo tax nii lay def. sëñ Fallou Amar lañ ko tudde sëriñu papa macha allah tubaarkàlla gàddu yel ga mu def nii la daan def buntu kër yëpp nag la fa daan taxawal gàmmu ga macha allah mujj gi kenn du fa xaj moo tax lii mu def tey bettu ma ah, ba ma fi jëkkee ñëw ay gin ay ginaar la doon def. dama ko ne woon ba dellu si waatee nag ngay taxawul te bu déwénee dina teg taxawal fukki nag ndax moom moo juddoo noonu ya noo gisee ànd bu muy ànd ak kii di Waly Balago Seck ki muy ànd ah, Waly Balago Seck xanaa Waly day day day mbokkam ndaxte Waly coono ko jur coon coono ko jur coono jur Waly Xadi sekk moo jur sëñ Fallou moo tax dañoo war a ànd ànd bu rafet moo tax ñu ànd dañoo war a ànd ànd la dañoo bokk ndax ñoo xam ni seen seen yaay ak seen yaayam ak papaam ñoo bokk ndey ak baay ñooñu suñu àndee dafa war te ànd ba day. yaay la princesse. kontaan naa.